immigration clandestine du tey la juddu suñu jamono amoon na. fa la woon sax. mooy euh, xaw ma fa la woon xaw ma ëppee woon. moom fa la ñu woon Frontex tàmbalee. Mhm. te li koy waral euh, xam nga dafa am lu économiste di wax effet d'imitation ak effet de démonstration effet d'imitation mooy toppandoo bi xamante nga ak benn xale boo bokkal koñ nga xëy suba. mu woola ak numéro waxal plus ne plus 39 la mu euh, euh, euh, indicatif bu Italie ne la sawaay man de maa nga itali ah yow noo def ba dem itali ah xanaa dama jox joxe trois 300000 wala dama joxe cinq cent wala dama joxe un million rek dem itali yow ma moom ko wax da nga fexe dem itali wax ko sa morom et cetera et cetera donc biñ ko yégee gouvernement Sénégal toogul croiser les bras dañu jël ministre de l'intérieur mu am relation ak ministre espagnol ñu fexe euh, créer ay conditions immigration bu normal ndax xale yi lañ doon dem di liggéeyi foofa dañ leen ci war a préparer le plus souvent dañ daan dañ daan former sax école des peche maritimes pour que bu ñu demee ñu mën a am liggéey immédiatement alors Euh, am na benn temps loola arreté mais jamono dafa gën a naqari surtout bi Covid bi xewee diggante mois de mars ak léegi jaaxle xale yi moo waral amuñu benn perspective d'avenir ñu ne nañu xaru parce que dugg ci gaal yi di dem daanaka mooy damay dem xaru ji. jaaxle moo ko moo ko waral. bëgg a tekki yegg ba dee daal. yegg ba dee benn la parce que fi mu nekk nii dafa mel ni. li ñu dund dee ku gën wala li ñu dund dafa mel ni dee ndax boo tolloo ni say nawle war a liggéey liggéeyoo war a faj gàcce fajoo gàcce mais da nga naan mais sëñ bi naa dem rek bu ma dee ci géej gi tant mais lu tax ñu war a liggéey liggéeyuñu te yéen ñi nga xamante ne yéen a fi nekkoon jaar fi euh, par exemple président Wade bu mu ñëwee euh, maa ngi koy wax sànq immigration dafa dafa am parce que si la amoon les accords avec Espagne ba Frontex am ñuy ñuy contrôler suñu waax yi pour xale yi bañ a dem y'a tout ça politique d'emploi yi ñoo lajj pour les politique d'emploi yi